ne jaar na fi. waaw nu mu tudd sax campagne bi. pour balaa mm. xam nga nit. Mm-hmm. bu ñu indi xibaar. Mm. boo ci xamee lu contraire que li ñuy wax danga ko war a wax. Mm. journal laas. moom moo def ci journalam à la une ku ñu lelli loxo bi fii. vi vidéo boobu mu joxe vidéo boobu mu joxe ku ñu lelli fii loolu c'est deux mille vingt et un la ah, ku ñu lelli fii ak ki ñu lelli fii bokkul bokkul ci suuf ki ñu gaañ fii lañ dagg maanaam loxo bi. fii moo gaañu ci suuf. ki Sonko seeti woon te ñu bandaas loxo bi. mu téye ko nii kooku ko. ki ñu gaañ laa wax. Hmm. man bu ma wax waxi Sonko. Ah, ah non ñun photo bi dañ ko gis. Ah, tamit ngeen du ma man ma wax waxi Sonko. man man sañ naa. man sañ ko mu wax dama ne man damay leeral te li may wax journal laas laa ko jëlee woon. na ko delloo na ko delloo te mu rectifier te mu jéggalu Sénégal parce que bari nañu bari bi ñu xoolee image bi dañoo gëmm mm-hmm. ñaawaay bu ñaaw même loolu bu doon dëgg sax waru koo génne a na koo defee neneen xam nga dañ koy tere maa tay la def mhm. parce que information mu ko jëlee ci waa passif mhm. man nee naa la fii laa toog man la ki ñu gaañ ca boutique ba la ne woon borom boutique bi wax na man maa ngi vidéo mhm. xam na yoo xam ne TikTok da koy bañ sax nga dugal ko faar xam man lu ma sa force ne TikTok dama ne vidéo boobu ñu ñu génneel photo boobu du dëgg bu yàgg la nañuy génne li am maanaam mbir bu amee bul yokk Youssou Ndour nee na journaliste liggéeyam lay def farfarlawul day yëgle. Mhm. li ko war mooy xamle. Mhm. waaye bu yokk bu mu wàññi. Mhm. waru ca yokk waru ca waaw mais wax ji kay leer na. alxuraan ne la bi naba yéen fatabayyanu in jaakaxum faasixun bu leen saay saay indi la dee xibaar. ba pare nga wax ma après boo xamul nag may eh, nga a une coalition contre Nguer ah, il dit il raconte des contre-vérités. Ah, tu la là le ministre de la de l'intérieur am na ñu mu dajal waxtaan ak ñoom. am na wala amut. ñaan la Serigne s'il te plaît waaw Serigne xam yow. s'il te plaît bàyyi ko mu daaneel. waaw c'est des contre-vérités c'est atel ah, atel la. atel ci ñee gedd te ñoo ne gedd du woon atel ñëpp. waaw dañoo ñëwaat xoolal. tu ne racontes que des contre-vérités. il faut accepter et on avance. on perd du temps quand même. bare ngeen. on avance on perd du temps quand même. waa léegi yow sëriñ xam nga ngeer bu la defee nii nga ne ma Fatima équilibré. waaw mais il répond comme si non bàyyi li ngay def. yow Aminata bàyyi mu dem voilà. ayca man maa xam nga man maa gis. waaw demal vas-y. atel ñu jóg gedd bi ñu génnee ñu tàllal micro sans Batista lan la wax dañoo parewul atel defaat communiqué ne ko yow moom da ngaa far. kon ñu ngi commencé ŋaañu processus bi benn atel def na recours conseil constitutionnel ne processus bi nii muy demee jaarul yoon parce que ñii ñaari weer ñi ngi defaru ñun ñu ni ñu fukki fan xam nga ne opposition bi dañ ay ndaanaan jëfi saay-saay sii lii bu doon Macky Sall la ko def kenn du xam lii nuñ koy lijjantee fukki fan. non demeewul noonu c'est que loolu a fàttali jot non non xam nga ñoom dañoo jot ay fonds de campagne. ñan ñoom ñaar man d' accord comprendre. Ah, loolu loolu sos loolu moom ñàkk argument. man donc d' accord naa am nañ ay per diem am ay fonds a campagne man nag aw man yàlla laa fi nekkal. dama ne li may wax waa attel ak may dégg. bind ko ne ko da ngaa far processus bi di dem. opposition bi waxtaan ba trouver consensus ak même le parti pouvoir pour problème casier judiciaire yi ñu dem kan moo bañ Diomaye bañ parce que mooy njiitu réew bi waxtaan nañ la opposition même ba ci parti bi Pastef bi waxtaan nañ ba trouver consensus pour ñu ne nañ casier judiciaire yi nañ xool nuñ ko dindee wala ñu yokk délai bi parce que dafa diggante bi moo gàtt yow fukki fan lii musul am ci élection fukki fan lañ leen may fukki fan pour ñu defar seen i liste fukki fan yi ci lañ defar seen i coalition defar ci seen i ba dëgër xam nga ne opposition bi bu ñu amoon bu ñu amoon vingt jours wala weer wi ñuy am pour préparer dana nañ ba taxaw kon xam nga ne processus bi. meloon nañu waroon a mel ñenn ñi dem nañ ba naan opposition boycotté leen ñu ne leen xel xalaatu ko mhm. mais góorgóorlu nañ ba taxaw ngeen yónni seen Déthié Fall jaarama ministre de l'intérieur parce que yaa ngi yéen yor ngeen për jëm e, e yor ngeen fond de campagne amul problème mais ñun ñu des ak yàlla ñun yàlla dinañ jox fond de campagne waaye élection yi mhm. opposition bi laay jaajëfal ndax wane nañ ci maturité wane nañ ci fulla wane nañ ci fayda wane wanewuñ ci benn ñàkk fayda bu xatal nañ leen tey sàmm sa kàddu am nañ cinq jours d' absence ci élection cinq jours yoo xam ne campagne ñu ko. bugaan ñaari yoon bugaan Bart démb fa mu waroon jaar ñu ne doo fa jaar keroog këram ñu ne ko munoo génn ndax Sonko nee na day ñëw sa kër moom it génnul mu toog di xaar Sonko këram Sonko dem tëdd kër sëñ saaliw ñu koy ginaaral ak di ko di ko njaralum soow muy naan tey la ñoom amina ca ca naaj ba. Barta toog këram jour boobu daf ko perte te tay tay fi mu ne nii tay rek moo ko dese tey yàllaa xamante lan lañ koy waxati mën na takkati jug préfet ne ko déedéet euh, euh, jaar foofu ndax foofu xaw ma lan sareetu fas yee fee jaar ak sareetu xar yi kon ñoom la ñuy jaajëfal te lii ñu nii responsabilité bi ñu àndal nag dinañ ko fayeeku yàlla dina leen ko fay parce que nag bari pexe saf yàllaa ko gën bu ñëwee nag ci côté mobilisation Fatima. Sonko lii muy mobiliser deux mille vingt deux Macky Sall doon na mobiliser lu ko ëpp te daa dem cohabitation la dem mobilisation yoral bii rek bii rek ngay yor kaar yi fa ñuy gaaree ñun dañ koy gis sëriñ keroog fii rond point école normal mais fi kaar yi doon gaaree man maa ngi romb di dem. xaaral waaw ba. waaw yow yow nga yor sa oto di dawal. démb waa marché ba faak. yow nga yor sa oto di dawal démb nit ñaa faak. ñii génn seen cantine ñii génn marché bi ñu daw wuti waa ji. est que yow heure booy wax. ci la kii di profité di wax. yaa ngi koy seetlu yow di dugg ci sa kawar tamit say wax lay profité rek duggal. demal parce que fa lay amee doole pour appuyer wu. xam na yow sa kàddu dafa crédible moom amul crédibilité muy langaamu ci yow moo tax waroo maa dagg. Serigne baal mu jàll demal. léegi nag. yow sa oto nga yor. ajjuma sa yow fa nga jaar wuy ma fa nga jaar. fa nga jaar génne jiwoo ca pont Grand Yoff ba. génne jiwoo ca autoroute ba génne yow na la nga jaar jël sa péage dem sa yoon. Cees waa nga sa Cees nga demoon seeti say mbokk waaye dama ne ñun xam nañ fi nit ñiy jóge xam nañ fa ñi daje xam nañ fa ñuy kii xam nañ fa ñuy collecté woo dama ne ba Touba sax dañ fay jële ay biise ki kaar ñuy dem ci caravane yi ñun lépp fi la ñu fekk waaye nag dimanche yàggul mooy ne votant yi dimanche la ñuy xamee xar yeeg nit ñi lan moo ëpp ci réew mi dimanche lay leer dimanche ci la ñuy xam xar yi ak nit ñi lan ñoo gën a bari référendum la xar yi ak nit ñi dimanche lañ leen di xàmmee quand mhm. parce que nag am na loo xam ne sa waay votel ci nit ñàkk xel la nit boo koy votel yow day fekk yow diggante bi de cinq bi nga ko joxee léegi huit mois nga ko jox. Mhm. soppiwu la dara. dara lum la soppil c'est-à-dire que sax lam la waxoon ba nga jox ko sax da koo far respecté wul far maanaam engagement la respecté wul léegi mu ne la dolli ma soo ko doolee doo nit. d'accord ku respecté wul engagement lu ci yoon wax dagg même contrat boo ko signé ak nit da nga may liggéeyal bi heure bi engagement bi lii la soo ko respecté wul nangam ak nangam boo ko respecté wul lu la ci dal. Hmm. yow a Pastef nag amul benn engagement astafurla benn lañu respecté mooy bu ma ñëwee tëj laat jóg. boobu daal respecté nañ ko. d'accord très bien <laughs> alors euh, Omar euh, euh, euh, euh quel député la ñu mën a xaar à l'Assemblée nationale d'après tendance yi d'après aussi tendance yi euh, nak nga mën a jàppee ni ci kii la favorable wala ci favorable ci kii xam nga tey Serigne wax na ni moom personnellement bëggul ñu jox opposition bi euh, majorité tey yow boo doon def pronostic tay jii nan nan nga koy jàngatee ci ci ci euh, ndax opposition bi lay doon wala ndax parti au pouvoir ak ban genre wala ban type de personne moo ñu war a représenter à à l'hémicycle bon euh, bo bu fekkee ni da ngay xool côté mobilisation euh, tu vas te dire que Ousmane Sonko mooy gagné. Euh,